boo ko baax ndey ak baay di ci woo ñëpp di wax ne bés bi dañ doon naan bés bés bi waaye bés bi nag suba la kuy ah, ku yéex ñàkk place yi heure la wax 3 heures war na fekk ñëpp installé wu. Ablaye Diop mi ko tëgg di promoteur bu mag bi lan cosaan cosaanu séeréer cosaanu joolaa xam nga nag joolaa ak séeréer benn lañu ak tukulóor lépp lañ ci woote képp loo xamante ne cosaan nga rek dañoo bëgg mu indi ñëw ci biir géej.

man Mbaye man kese sama gàngoor yéen ñëpp ñu dajee ñu dajee terrain gaan bi ànd ak kan Ablaye Diop ci sous production Chéri Ndeye ak Fatou xanaa neex na. asalaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokku Sénégal asalaamaaleykum mbokku làmb ziar nañ leen yéen ñëpp. acca wax ji nag xam naa ne du sori ndax ànd ceeg suñu mag suñu yaay. muy Mbayang Fall presque liñ ci war a wax yépp wax na ko muy xew-xew bu rëy ligue simple drapeau Angel Fall arrivé Sëñ Fallu bi mu doon drapo boo xamante ne ñu ngi ci sixième édition yaakaar naa loolu ngor rek a ko lal ànd ceeg Mbayang Loum Abdou Ngodo muy cent pour cent Kër Farba wax ji di mun a gudd ndax euh, yàgg nañ ci lool te lu dul yàgg comment dire lu dul dégg du yàgg loolu lii rek firnde la mu doon loo xamante ne nag feet la ñu bëgg ku nekk ñëw teewee ko muy drapeau Angel Fall profitoo rek di leen xamal ne bu suñu production tegee tegaat tegaat tegaat c'est grâce à Angel Fall pour nit ñi xam ne du drapeau bi ñu ko tuddee rek ci lay participer lamb ju ñu mos a tëgg bu ne loxo ma ngi ci biir ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko jaajëfal di ñaan nag Yalla, yóbbuñu ceeg jam, ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim alhamdulillah. ceeg alhamdulilahi rabbil alamin drapo bi nak benn firnde rek la am muy ciosan bi ciosan ku ndam ciosan lambu séeréer teewal dimanche incha allahu rabi di ko gis ci marraine bi di ko gis ci organisateur yi gis ko ci télé bu mag bi muy RDV kon aca jage allah ñu gis nga teug lamb ji eh. melni da nga jàppaat ci combat bi ci lu waral lolu ci la dëkk bii lii yaakaar naa munuñ fee indi mukk lu fi newul pour te dire vrai rek lii yëpp borom bés bi préparé na ko ba pare ndax nit ki la jox un million ko cent mille yaakaar naa defoo dañuy was lu àq rek ñaan lañ am ci moom suñ fallu mi mu yaakaar yàlla na ko taxaw ba mu yëg ko ndax bu ci gisee boppam rek ñu gis ci suñu bopp macha allah. tay jii nii lan ngay wax amateur yi nga xamante ne war nañ def déplacement bi ñëw seetaan si li nga xamante ne mooy làmb ji. di leen xamal ne cosaan moom lañ bugg a dégg ci dimanche incha allahu rabi bokk na ci mbër mi ñëpp constaté gis ne na mbër démb doon mel noonu na mel tey ci habillement bi kooku balaa nga dugg ci drapeau bi suñu production def la amal euh, récompense bu extraordinaire nga doog a dem nag ci jàppoot bi incha allahu rabi du na lamb rek mo ñu taxaj a bi leneen luñ ci fekkat rek pour ñun bénéfice la kon jere ngeen def yeen yeb machallah allah. jëf aca Adama ara mu jëf assalamualaikum assalamualaikum. champion de Afrique bu ma waxee champion de Afrique ngeen xam Senegal Sénégal a gagné. Mhm. ndax Senegal dañu war wax Sénégal champion de Afrique. di sant ñëpp nak di gërëm ñëpp di ñaanal man maa kalau di corona dee na te moom na bay xaw a xel mel ni ku may loolu nag balaa ma ci wax dara ma nuyu nag maire de commune de nga xam ne drapeau bi ku ci woo da nga ko ci a ko fuqar ci woon ci loxoom ne ko drapeau bi déwén mën naa koy jël daaw loolu boobu amee bu ñu nekkee ci dëkk bi tey gannaaw dañ ko war a nuyu taatagaan ko naan yéen ba mu yënu yal naa ko yàlla oyofal ci ko am. mais xam nga ne ma jóg boo ko woo ci Mbaye Fall di ko woo ci ancien wala loolu moom yàq wax la. ma kontaan loolu nag taxaw fii tey di ngeen maa gis nag. ma am ca la ma ne woon ndax d'habitude dem moo noonu mais nag lu mu dem dem dem xam nga ne suñu fii bu taxawee dinaa ci taxaw. ñu nag nekk ñoo xam nag social moo ñi seen xol yi ci bu am noonu noonu noonu ay teraanga mooy Bayang Fall ak Angèle Fall ak Xaar suma jigéen pour bu rafet. ay nit rawatina nag euh, suñu production nga xam ne eh, bu dee ba tey deux millions cinq am na fu mu ko mën tegee mais dafa bëgg a satisfaire nit yi wan leen ne yéen ñuy dundal yéen la ñuy dundal nga xam ne ñoom say bu ñu xewle balaa nga koy gën a xam nga dem ci jaaykat ga caaf ga mm. ndox ba boisson ba ñooñu di ko wax ne kontaan ñooñu bu ñu kontaanee RDF xanaa dina mm-hmm. kon bu yàlla loolu amee nag du gi dem teeri gaan wax jartul muy sori léegi boolu kon moo ko fi jartul sañ sa ba jeeg xam ne nag ñun ay champion Afrique lañ boo nekkee champion Afrique nekk dañ koy fi dañ ak Mbaye Fall ak Xaar jew ak enchaînement bii. wallaay. lii nag du bulat tey ma profité ci sant nag bu baax a baax jar muy sore lii nii dañ ko ay at at kon nag jërëjëfati. ndax bu waxee jërëjëf nit dina ko defal benn yoon. buñ ko dëkkee def année buñ ko njëkkee def nit boo jógee rek ñëpp topp sa ginnaaw rek xamal ne mooy loolu enchaînement jóg taxaw fu dëgg rek. suñ papa Abdoulaye Ndour du taxaw fu dëgg kon nag sant ñëpp. di woo ñëpp. staff bi staff bi nag suñ pro suñ góor production. Mm-hmm. ñun fàttewuñu kenn ñun ñëpp ñooy tekki nag ceeb bi tooy diwlin bi tooy boisson bi daxante <laughs> ah wax ah ah Senghor ñoo ko wax. Ah, kon kontaan naa ne fu mu nekk nii. Mbayang Fall sama chéri. Ah. waxoon naa ko ne sooy passé dinaa tag. Mbayang lum la Mbayang lum la Mbayang lum la nag. bu mu nekk nii nag. Ah. law yu passé digga bi du bëri digga law yu passé rek damay tag. bu ñoree <laughs> gars yi xoolal bu xewlee damay bindu. yaa ngi xoolal damay dara yéen. yow suba la muy gaaw bu xaay ñoom na ko jëlee kan la ñu war a yàkkal suñu production. waaw waaw ak ak seen bu war ko yàkkal fan tamit. jaawa kan de koro koro kan dama sagara kan taat leen ba tawee kër gaal ma ne waa ci bu ma ngay date bu ne waay soos. soos maa ngay adressé télé gaal gi ajaran jëm. waaw oh. soxna.